enraciné léegi sax te fal li dal sa xel kilifa yépp wax ba tey. waa waa kër gi kaay leen dimbali ma mama Rose Rose ñëwal ñëwal gaaw kër gaa ngi toj ñëwal yow yaawu ñeme ndeke sa miix miix yi rek ndeke te def kat nga.

li yëpp ci sutura lañ ko war a def na ngeen fi dëkk ak seen nawle dugg leen seen nekk. eh dama ni nga gérer problème wala nga bàyyi ma gérer ko. ko gérer dugg leen seen nekk rek. waaw kii amul wowul ah, ba te ñeme. duggal seen nekk xale bu ndaw eh eh affaire bi fii la de du affaire de Serigne de wujje technique la. ñu dañuy génn dañuy génn. waaw. Hmm. waaw dem leen kan moo aye yow la wala. suba suba bébé yow yaa aye tam préparé wul te bàyyi yi ngay def nii. demal ba suuf baax yow moom bi pour lan yow ah, am eh, xam nga lan laa bëgg nga dimbali ma. gis nga kii moom manqué manqué boppam bañ koy yuuxu sama yoon nekkul ci moom gis nga man damaa woy ne dégg kii sikkuma ak moom dara ci kaw lay tëdd damay tëdd ci suuf. problème am la na ko eh, yow laa ko dénk yow tamit. Christine. Eh, dadi maa ko tey. maa ko tey ma ni la maa tey saafara def fi saafara. waaye man ban sëriñ moo la jox caabi lii dafa xew. xoole yi oppi tous les moyens sont bons pour avoir son homme maa ko tey yëngal kër gi lii laa si bëggoon. kon lépp lépp pour man la. waaye balaa nga cee xam dara ñoom ñëpp ma génne leen kër gi des ak yow ci kër gi.